ay nu mu tudd cour des comptes hmm. euh, ban gis-gis nga ci am non mais c'est des rapports qui sont par à vocation ou par essence doivent être rendus publics et c'est ce qu'on a toujours fait donc pour moi le président a enjoint les institutions de les rendre publics c'est normal les gens le faisaient avant peut-être qu'ils attendaient euh, un peu plus longtemps pour le faire maintenant qu'ils l'ont fait dès qu'on leur a sonné l'alarme il y a des mêmes rapports qui ont donc euh, pour man bon ça changerait hein les textes existent pour publier ça la Cour des comptes l'OFNAC publie régulièrement leur rapport donc il y a rien qui change. mais dans la manière de lire d'interpréter mm-hmm. ak dans la manière de concevoir ces ces rapports damay gis euh, ay délits yoo xam ne ils peuvent être pris en charge par la chambre de de discipline administrative ma gis euh, des sociétés publiques euh, mais qui son des des des des des des, des SA des sociétés des anonymes euh, nga xam ne conseil d'administration bi euh, moom mooy légiférer euh, ma gis conseil d'administration bi bu bu bu autoriser lii la cour des comptes condamné condamné ko alors que ces conseils d'administration sont sont soumis euh, aux, règles de de de l'OHADA et les règles de l'OHADA mm-hmm. sont supra euh, par rapport aux règles aux règles nationales. Mm-hmm. amul ay réforme ay coppite euh, yuñ ci war a indiwaat harmonisation buñ ci war a defaat euh, ci wàll boobu. bon xam naa réforme ak amélioration moom fu mu il faut que ce toujours muy am ñuy xool lu doxul jubbanti ko li ngay wax peut-être xëy na maîtriser wu ma trop détail bi mais euh, nangu naa ni que y a un principe euh, toujours de remettre l'outil à l'ouvrage ay loi bu ñu ko doxalee appliqué ko gis li ci doxul il faut ñu corriger ko euh, léeg-léeg aussi dañuy gis ñun suñu ambition mooy copier les bonnes pratiques ailleurs est-ce que toll nañu foofu dans la culture administrative dans la culture politique du pays léeg-léeg euh, les textes parfois sont en avance sur les mentalités des gens ou bien sur le vécu yooyu aussi day nekk ay situations yi nga xam ne il faut c'est à la preuve euh, à la pratique qu'il faut le qu'il parce que boo xoolee exemple bon les mesures yi euh, intention déclaration yi président Bassirou Diomaye Faye def pare am na ci ay textes yi nga xam ne même la question de la euh, protection des lanceurs d'alerte am na textes yi mu nekk et cetera yaa xam ne assemblée la question la loi sur l'OFNAC am na problème yu bëri yu mu réglé ci li président Bassirou Diomaye wax donc peut-être xëy na sax même il n'avait pas eu le temps de lire ces textes la ou bien que l'OFNAC n'a pas eu le temps de les mettre en œuvre donc parce que le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC et tout cela objectif boobu loolu la woon parce que c'était aussi la demande des bailleurs de fonds et dans le programme du le euh, le euh, le programme entre le Sénégal et le FMI ces conditionnalités avaient été posées et le Sénégal a tenu à les satisfaire donc kon du lu bees du du lu ñu fi créé li ñu waxoon nañ ko jëfee nañ ko maintenant nag entre le texte et la volonté d'application xëy loolu mën na am différence mu am volonté politique plus affirmée du président Bassirou Diomaye Faye de les appliquer loolu mën nañ ko nangul mais vraiment les textes existent et parfois les textes sont de très bons textes qui ont été élaborés sur la base des meilleures pratiques au monde donc loolu aussi euh, Sénégal euh, de ce point de vue-là Euh, je crois que warul am ay à apprendre. Beaucoup de dossiers vont être transmis au au au procureur de la République. Mm. Déjà le dossier sur la sur la Covid. Mm. Euh, sur la gestion des fonds Covid mu ngi avec le procureur de la République euh, mu mel ni sax dañuy envisager étendre les poursuites. Mm. aux adju aux aux aux adjudicataires des des des des des marchés en question. Est-ce que naruñu demaat ci seconde phase euh, traque des des biens mal ah ben, ou, ou, ou, ou reddition mm-hmm. euh, des, des, des comptes, pas traquage. Bon, enfin, peut-être aussi, euh, le, il a cool aussi, parce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait des infractions comme ça, et puis que les gens ferment les yeux comme ça, et puis placer qu'on mettre à perte des profits. Je crois qu'il y, a une volonté de reddition des comptes, il faut en tirer les conclusions, traque des biens mal acquis, jusqu'où les procédures vont aller. Bon, euh, parce que aussi, tout dépend de la légalité. tout dépend de la légalité qu'on va en œuvre parce que tey aussi jeu politique daf ci am xam nga aussi application texte yi dafa am jeu politique ci am tey boo jëlee par exemple nga ni euh, da ngay euh, poursuivre ñenn ñi hmm? nga bëgg a créer haute cour de justice parce qu'il y a des gens qui ont été ñu nga war a poursuivre ci Covid ils étaient au gouvernement xam nga haute cour ils sont foofu ils sont justiciable la haute cour de justice. Mhm. haute de justice fan la assemblée nationale la jëm. nga war a la nga ko war a defee. nga ko war a defee nga dem fekk fa majorité écrasante ba nga xam ne bëggu ko mais du yomb pour yow nga jàllale ko donc yooyu yëpp dafa nekk ay galgal ya nga xam ne ça se dresse devant le gouvernement. am na ñu ñu tudd ci rapport yi ils sont dans ils sont à l'intérieur. non ils sont ils sont à l'intérieur. wala ils sont alliés. ils sont ils sont à nga bëgg leen a poursuivre s'il y a un bloc. de son camp pour les protéger sa pouse un problème ou bien un ancien ministre mu ñëw il récupère son poste de député à l'Assemblée nationale par exemple siéger assemblée nga war ko bëgg a poursuivre nga war a lever immunité parlementaire son camp def bloc euh, pour le protéger yooyu ay difficultés yi nga xam ne politique bi da ci inter da ci intervenir moo tax doo mën a tëb tëb rek dogu ni que lii mën na àgg fii. doo mën a xam lan mooy doon goulot d'étranglement yi. voilà parce que fan la yan obstacle la gouvernement bi am ak mu koy lever. Euh, parce que fi mu toll situation bi ñu nekk nii dafa nekk situation bu xaw a nga am un président la république ba nga xamee ni amul majorité à part à l' assemblée nationale te gisoo dynamique bu mën a créer pour faire une majorité euh, euh, bu taxaw parce que ñi fa nekk boo xoolee ñoom 82 députés la ñu amoon bañ nekkee yeew yi yeew yi ku ne ku nekk dem na ak sa bopp Pérez dem na groupe parlementaire am Khalifa dem na groupe parlementaire et cetera seen intercoalition boobu ñu defoon. Euh, donc li ñu pur dem na li ñu dese ci seen biir doyul pour ñu mën a imposer benn rapport de force au niveau du parlement te yoon mayeegu leen ñu dissoudre assemblée nationale mënaguñu def référendum wala bu ñu ko defee xamuñu lu mu référendum bay jur donc kon dañu nekk ci incertitude politique ba nga xam ne mënoo ne nii lay demee loolu nag tant que obstacle yooyu yëkkati wuñ ko levé wuñ ko doo mën a xam lan que le mën a doxal ak son ont des difficultés parce que aussi y a y a xam nga euh, dañuy wax naan il faut que euh, l'Assemblée ait une culture républicaine Sénégal moom la ñuy jiitu lépp dëgg la mais aussi gars yi dañuy bàyyi seen xel boo jël dañuy bàyyi seen bopp xel gis nga boo jëlee par exemple cas cas euh, quand Ablaye Wade était au pouvoir en 2000 bi mu ñëwee ils avaient trouvé situation bi Bassirou Diomaye Faye. yi mhm. fekk. mooy am une assemblée dominée majoritairement par le parti socialiste booba mënagul woon def euh, mënul woon def élection kii mënul woon def euh, élection législative anticipée parce que booba la loi conditionnait les élections législatives anticipées au vote d'une motion de censure du premier ministre boobu loolu la constitution bi waxoon jamono yooyu mais Abdoulaye Wade était obligé de se coltiner cette assemblée jusqu'en 2001 bi mu defee référendum mm-hmm. ba pare mm-hmm. soo ko ci la ma mais le parti socialiste qui était majoritaire avait dit qu'ils vont accompagner le président de la République pour ne pas le gêner ils lui ont fait voter ses lois de finances rectificatives ils lui ont fait voter sa loi de finances annuelle euh, texte yi ñu aussi les gens les votaient les yeux fermés sauf les réformes constitutionnelles pour la dissolution par exemple du euh, du Sénat ou bien du Conseil économique et social. du CRAES à l'époque. du CRAES à l'époque ah non du conseil économique social du conseil économique social bi ko Wade dissoudre la indi CRAES <laughs> donc tu un peu comme yooyu dafa politique aussi Macky Sall bi mu en 2012 il avait trouvé que le PDS avait une très forte majorité euh, mais euh, fekk na constitution bi changé nañ ko hmm? euh, et puis le mandat de député arrivé à expiration au mois de juillet c'est-à-dire deux mois ou trois mois après son installation donc lui il n'avait pas besoin de ça il a il est allé à des élections législatives dans la foulée et a obtenu majorité donc trois mois après donc situation yooyu moom la ñuy dund actuellement. mais mais est-ce qu'il y a possibilité de négocier avec euh, la majorité à l'Assemblée euh, gars yi tegg seen tànk et en contrepartie aussi ñoom aussi ñu am lu ñu def. Ah, est que nekkuñu ci dynamique boobu sax. ah xëy na ñu ngi négocier man xaw ma parce que aussi euh, en tout cas. <laughs> Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko seen gouvernement soxla nañu assemblée bi. assemblée aussi soxla nañu. moom kay ñu ngi gisee ñu Amadou Mame rek. bon donc euh, il faut que aussi parce que gis nga la wax Amadou Mame Diop mais par exemple avant l'installation avant que ñuy former gouvernement bi mais Amadou Mame Diop. Euh, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ñu ont dit que nous voulons dissoudre l'Assemblée nationale euh, non enfin pas l'Assemblée nationale nous voulons dissoudre le Conseil économique et social dissoudre le HCCT, HCCT. nous voulons aussi la, la, la et cetera et nous voulons aussi une euh, loi pour renforcer les pouvoirs du premier ministre loolu wax dañ ko wax mais déposé guñ ko texte bo bon donc buñ ko waxee il ne peut que prendre acte de la volonté du gouvernement en attendant que ñu leen ko texte yi bu ñu leen du ma am mooy décider. da ko yóbbul député yi xool ba xam loolu arrangé na leen arrangé wu leen donc yooyu yëpp aussi mi ngi ci.